salaamaaleykum mbokki internet yi seetaan Lambaye Info TV ñu ngi woon fii tey ci Lambaye Touba Lambaye ci rencontre daayira fondation Sopp Serigne Saliou ñu ngi ci ànd ak jëriñ Dame Ndiaye bisimilah sëñ Dame. aouzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barki Serigne Saliou Serigne ngi bu bis bi nga mo di bisub sant Serigne saliw muy premier edition di fondation soppe Serigne saliw fi ci Lambaye ñu am yene ak ko koog rawati wa Touba Lambaye ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax bah, kon auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki Mbok mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu baax leen ziaré di ñaanal bu baax a baax sëriñ Mountakha Mbacké ba yàlla yalla fi yagulul te wer yag ci ginnaawam yag andak mo moom serigne Touba bi ñi ziaré mbok talib yépp rek tay ji nak euh, di ngontom sant serigne Saliou fi ci lambay wa fondation sop serigne Saliou zone lambay don ko taxawal tay ji nek première édition ñukoy soga a amal waaye dañu bëgg at mu ñor rek sax la 30 décembre ñu taxawal ko bés bi ni muy rek moy jang alxuraan jang nañ fi alxuraan ab kamil ñing ci durus ab yi soo déggee noonu kuréelu jalabatul bu làmbaay mooy jàng noonu su noppee eh, kuréel kuréelu eh, jama caada dina jàng ak yeneen mbokk yi taalib yoo xam ne bi nañ ci barkeelu incha allah kon noonu lañ ko fas yéene def at mu jot. su dee nag li nga xam ne mooy jëmmi fondation bi ni muy doxee rek mooy jëmmi daaira la yor comme ni daaira di doxee noonu la fondation bi di doxee mooy day am carte membre am ay laxasaay ñu naan koon di am ay ay rencontre rencontre mooy ay réunion Euh, saa su weer wi deyee dimanche bi njëkk dimanche bi njëkk dañ koy def euh, réunion soo xoolee tamit bu dee membre yi muy euh, góor yàlla yi ak soxna yi képp koo xam ne da ngay ñëw ci fondation bi boo ci bëggee bokk da ngay joxe deux mille cent cinquante bu dee mille francs yi mooy nekk sa carte membre su dee mille cent yi mooy nekk saw sas weeru dee su ko defee soo ne weeru dee nga joxe mille cent mille cent cinquante mooy nekk saw sas weeru dee loolu góor yàlla yi ak soxna si ak soxna yi ñoo ci bokk yem su ko defee tamit saa su weer dee dimanche bi ci njëkk dañuy am rencontre muy ab réunion su ko defee loolu li koy tax a jóg mooy xool li nga xam ne mooy jëmmi fondation bi xool li nga xam ne moo ko war a jëmale kanam ñu waxtaane ko gën koo doxal li nga xam ne bii tamit moo koy gàllankoor ñu xool ko jëm ko cee génne ba mu set su ko defee tamit Euh, fondation bi soo xoolee mi ngi sosu euh, le 3 euh, le 3 mais le 3 mai 2022 la sosu daanaka soo xoolee boobaag léegi day dolli ci juróom-ñetti weer ban koy sos tamit nekkan na daanaka juróom-ñaari nit moo moo fi teewan muy ñetti góor yàlla ak ñeenti soxna ñoo fi teewoon mu nekkan ci barab bii. waaye tamit ban koy def jëmm ju tedd dafee ñëwoon muy sëtëb Serigne Aliou Diouf Lambaye ñëw ñu leeral ko ko mu defan ci ñaan. ba fi ne nii ma lay waxee euh, membre yi warna tolu ci 50 personnes muy juróom fukki membre euh, waye so xoolee tamit membre yoyu amna ay soxna amna ay góor yalla waye soxna tamit so xoolee ñoo ci ëpp machallah ba légui tamit li nga xam moy fondation bi amna ay activité moy amna ay yëngu-yëngu yo xam da koy faral di da koy faral di def bokku na ci at mu jot dañuy taxawal ab ziar bo xam dañuy ji Serigne Cheikh salim Mbacké dañ koy siyaare ji siyar bi passé rek mi nekkan ci mois de euh, mois de août bi ñu fekk ko fële ci Xelkom daara ju naal jësubul xulub fa lañ ko fekkoon kon chaque année dañuy siyaare ji même chaque année tamit su koom ñëwee dañuy waaj dem xel Xelkom jàpp ca liggéey ba Xelkom ji passé rek góor yàlla yi ak soxna yi ñoom ñëpp demoon nañ jàpp ca la nga xam ne mooy liggéey ba ba léegi bokk na ci liggéey yëpp euh, fondation bi mooy li nga xam ne mooy euh, jàng jàng ak jàngale njàng mi ak njàngale mi dañ ci fallantee di ci di jàngal ñëpp seen diine islam ñu xam ne ni jaamoo yàlla euh, di leen jàngal benn groupe whatsapp boo xam ne bii dañ ko ubbi waa culturel yor ko su ko defee ñu cay jàng ak di ca jàngale su ko defee ñëpp mën cee gën a xamee seen diine islam ndax comme que diine islam moom lu nuy jàng kon euh, tamit fondation bi day yëngu bu baax a baax ci li nga xam ne mooy wàllu jàng ak jàngale. ba léegi tamit soo xoolee li nga xam ne mooy fondation bi am na ay ay règlement intérieur moy lepp lo xamné bi, yalla suñu sunu borom da koo santaane ne nañ koy def muy lu bax lolu dañ dañ ca tënku lepp lo xamné tamit euh, sunu borom da koo aaye muy lo xamné ne lu lu daganut la lu yalla ayé lepp tamit dañ koy dañ koy téré motax tamit fi ne so xolé budé walu soxna yi ñepp kene ku ci nekk daanaka dañ leen ni tagar bu baax baax ñuy gorgolu ci nga xamné ne jaamu gi ak walu cholin wek walu lepp rek lañ leen ci gëna tagat baax di ci gën a falante tamit ci ñun ñun góor ñi kon loolu lépp soo xoolee bokk na ci maanaam ci li nga xam ne mooy liggéey fondation bi euh, fondation bi tamit daanaka ba mu sosoo ba léegi yàggut waaye wax dëgg yàlla mi ngi def ab liggéey bu am am solo ci li nga xam ne mooy tund wi ndax dañoo bëgg la nga xam ne moo moo la fi mag ñi bàyyi woon muy sëriñ Aliou Diouf Lambaye ak sëriñ Babacar Ndiaye Thiargane ak sëriñ Mor Mané Mbaye ñoom ñu nga xam ne dañoo xeexan ba islam taxaw fii ci Lambaye ndax dañ daa wax ne euh, euh, islam day taxawal ko Lambaye mi ngi mel ni nga dem ci ba ci digg nga bëgg faa waaye léegi soo xoolee daayira yi ak lu mel ni fondation bi ñëpp ñi ngi góorgóorlu ba nga xam ne seen ite yëpp mooy jàng alxuraan jàng xasida jaamu yàlla ba nga xam ne euh, euh, làmbaay gi ñu nekk tey ay jamono am na nu meloon waaye wax dëgg yàlla léegi mi ngi am ak soppeeku bu baax a baax a baax ci li nga xam ne mooy diine ji ndaw ñi ñi ngi takku bu baax a baax di liggéeyal yàlla di di liggéeyal rasulullahi di liggéeyal Serigne Touba fondation bi li ko tax a jóg lépp mooy liggéey Serigne Touba fi mu commencé fa jeex lépp leen dong la muy liggéey Serigne Touba kon loolu moo tax mu sosu am am na tamit li nga xam ne mooy wàllu social am na bureau boo xam ne bureau bu complet la Serigne Dame Ndiaye moomu doon wax mooy jëwriñ ji am na ku topp ci moom muy Serigne Saliou Dieng am na trésorier am na secrétaire am na social am na euh, lépp ci biir euh, social bi tamit soo xoolee li tax ñu gën ko cee def mooy mbooloo suñ tasee di liggéeyal yàlla di liggéey Serigne Touba faw dañoo war di jàpp jàppalante kenn koo xam ne dara dala cee dal moo xam nga am aw xew muy céet wala ngénte wala ñu ko ñaanuñu ko yàlla lu mel ni ab sa euh, muy sarax fondation bi day ñëw jàppale la ca ba ba nga xam ne bi jël bis ba def ko def ko ni seen bis kon wàllu jàppale na muy wàllu social ñu ngi ciy góorgóorlu tamit bu baax a baax a baax kon soo xoolee fondation bi daal wax dëgg yàlla loo xam ne la xëy na liggéeyub Serigne Saliou la ndax liggéeyub Serigne saliw mooy Euh, jaamu yàlla ak liggéey kon loolu lépp fondation bi soo xoolee noonu lay doxee muy lépp dañoo tënku ci bennoo lépp tamit loo xam ne dañ koy def dañ ciy diisoo ba juboo ci suñ diisoo ba euh, juboo ci su ko jël loolu daal koy doxal am na tamit loo xam ne mooy wàllu li nga xam ne mooy wàllu finance ñoo xam ne wàllu addiya lépp lu ci génne dañ koy dajale jox ko finance mu bind ko denc ko nga xam ne saa suñ solowaatee jël ca loolee def ci li war a def nga xam ne bis bi ñu taxawal dañ ko def ab jaayante muy wàllu góor yàlla yi ak soxna yi ku nekk ñu sas la lu toll ci 2000 francs am na sax ñoo xam ne dem nañ ba joxe lu loolu ngir ñu mën cee am ay bernde yoo xam ne mbokki taalibe yi ñu invité suñ ñëwee ñu mën leen cee berndeel kon tamit ñu ñu am ci mbégte lool ndax wax dëgg yàlla góor yàlla yi ak soxna yi nekk nañ ci ay jàmbaar yoo xam ne kenn ku ci nekk soo waxee wala mu jëf rek da ngay xam ne kii moom bëgg na liggéey bi bu baax a baax a baax ku ci nekk jàmbaar la ci ndax soo wootee dañuy ñëw wuy si soo laajee ñu joxe kon loolu nekk loo xam ne lu am am solo la ñuy ñaan ci barkeem Serigne Saliou Serigne Saliou yàlla yokk ay leeram taas ci barkeem liggéey bi fañ ko bëgg a ñu dem ba àggale ko fu kawe suñu jortu kon xam naa ñi ngi taxaw ni foofu rek di jéglu baax baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah am na solo lool am na solo lool sax ñuy ñëwaat rek ci mbokk soxna yi ànd ci ak jëwriñ ci jëwriñu soxna yi soxna Dior Seye mu indi ñu ay leeral taxawaayu soxna yi ci ci biir daara ji soxna salaamaaleykum wa rahmatulah ziare nañ leen yéen ñi ànd ak ñun Lambaye Info TV seen taxawaay rafet na trop leen ziare bu baax a baax di leen wax ni. comme sunu jëwrin basiiru fay fi mu daanee daaneelee rek foofu la ñuy delluwaat fondation Sopp Serigne Saliou ñi ko taxawal ñi ko taxawal duñu nekkuñu ay jëwrin yoo xamante ne nii tamit dañ leen di dégg ci yenn yi macha allah di leen ziyaare bu baax ndax seen taxawaay rafet na torop di wax ci sunu mbokk soxna yi daara ji ni muy demee ñu daara ji biñ ko créé ak léegi yàgg na yàggul waaye ñu ngi ciy gis ay avancement yu baax a baax ndax biñ koy créer bariwul bariwul woon ay nit par exemple li ñu am ci lim comme li sëñ Basiru Fay wax rek di taxaw nag di jàppale bëgg ñu jàppale ñuy bu baax a baax ci daara ji di ci yaatal ñëpp tamit képp koo xamante ne nii sëriñ Saaliw ak liggéeyu sëriñ Tuubaa ñor na la ñu ngi la ci yaatal bu baax di wax ne bunt bi yaatu na saa yu ñëwee di nga bokk si daara ji maa ngi taxawal nag samay kàddu di ko jaarale si jëwrin soxna Ndey Joxu bajaan moom lay teewal fii sama teewaay moom mooy jëwrinu soxna yi ñun ñëpp ñun ñoo ne yi nga xamante ne ni ñun soxna yi moom lañ jënd di ko sol mu nekk laxasaayu fondation Sopp Serigne Saliou bi jigéen ñi c'est obligatoire ñu xotti ko te tamit rencontre su amee c'est obligatoire moom lañ war a sol ñuy teew ci rencontre bi ngant nag mënta ñàkk su rencontre amee mais di sàkku tamit ñëpp koo xamante ne nii rencontre am na noo mën a def ak lépp loo xamante ne nii mën nga koo góorgóorlu ba teew fa moo ñu gënal ndax rencontre su amee yu bari si lay ci lañuy di soññaat tamit ñi nga xamante ne nii dañoo pare pour ñëw fekk si ci biir daara ji ndax jigéen ñi sama mbokk soxna yi am nañ ci solo lool seen taxawaay rafet na torop li ñuy liggéey macha ak sunu mbokk góor yàlla yi nga xamante ne ñoom ñooy suñu njiit di wax tamit ci ziar bi nga xamante ne nii chaque année moom la ñuy amal ci mois de août bi ci fondation bi Sope Serigne Saliou bi chaque année mois de août dañuy amal benn ziar di wax tamit ci addiya yi nga xamante ne ni chaque fin de mois moom la ñuy joxe weer bu dee jigéen góor ya góor yàlla yi moom sëñ Bass wax na lépp sax

liggéey bi liggéey bu am solo la bu mucc ayib ndax góor yàlla yi macha allah jàmbaar lañ ñi ngi taxaw ci liggéey bi suñ mbokk soxna yi tamit jàmbaar lañ bu baax ndax foo leen woo foo leen woo ñu fekk si la fa di sàkku nag ni ñëpp mën nañ ñëw bunt yi yaatu na tijjil nañ ko ñëpp ndax liggéey sëriñ Tuubaa la lu si waaye di def doo ko réccu di leen ñaanal jàmm yéen suñ mbokk yi nga xamante ne Lambaye Info TV seen liggéey rafet na lu baax ngeen def ci dëkk bi leen ñaanal jàmm ak tawféex barki sëriñ saliw barki sëriñ saliw waaw ak sant ak ak pësteef gi nga xamé ci si mbokki fondation sopé sëriñ saliw bi yëpp amees nañ ko ci liggéey bi nga xamné suñ borom dogal na ñu nekk ci kanam dafa dëgg yàlla xatal ñu benn yoon man nañ ni ay tu tànk lañ ci ñu teg ñu ci kanam maanaam du suñu xam-xam du suñu dara waaye am na ñu ñu pëseef bu baax a baax si biir daara ji kon mbooleem képp ku nekk si daara ji rek ñu ngi la ciy sant bu baax a baax a baax a baax leen wax ne am nañu ak mbégte ak kontante bu baax a baax a baax rawatina suñu mbokki soxna yi nag wax dëgg yàlla jàmbaar la ndax comme ni ko soxna si waxee rek fuñ leen foo leen woo ñu si leen waaye nag ñi ngi yaatal liggéey bi nga xam ne si ne fondation Soppe Serigne Saliou la di yaatal liggéey bu baax a baax a baax a baax bépp ku 52 villages yi képp ku ci nekk ku nekk suñu sañaan ñëpp ñoo bokku si ba nga xam ne si ni zone yëpp zone làmbaay bi moo ci raw te am nañ yéen ji am nañ yaakaar yi comme ni ko Oustaz Bassirou fay waxee rek bi ñuy tàmbale fii yaakaar naa juróom-ñaari nit rek la ñu woon waaye am nañ ci yaakaar bi ko sëtub sëriñ Aliou Diouf Lambaye ñëwee fii ñaanal ñu ci nit dama ak yokkute waaye boobu ba léegi ñi ngi koy dox ñi ñi mi ngi koy am bu baax a baax a baax a baax mm. ndax lu toll ni juróom ñetti weer suñu borom dogal 52 50 personnes nek ci ko lool ak yokkute rek la te am nañ ci yaakar bax bala balaa déwén ñu koy cantaat fi dina gëna kawé lool première édition bi nak am nañ yaakaar ne déwén incha allah rabbi dafay fanaan kon ñi ngi leen di santat bax di sant ñi nga xam ci nak wuy ci nañu ci liggéey Serigne Salif bi Serigne Salif kat non dox joxle man daw ñi ma def ci Serigne Bamba defanti mag ñi gannaaw yooyu sax waaye kon lool ak sant la maanaam Serigne Salif def nak ñun lo xamé ci ni ah ñi demoon ci daara sax am na loo xam defu ko ci ñom ndax sëñ saaliw bëgg gi nga koy bëgg ak defaroo rek la ci rawati ku ñu xaman démb xam ñu tey li nga xam ne sëñ saaliw am na lu mu sopp suñ jëmb yi te du man rek bari na ci fondation bu baax a baax a baax baax maa ngi seetaan benn interview boo xam ne si mu ne am na ci ñoo xam ne si nii ku ciy wax te waxoo man la soxna soxna sëñ saaliw wala nga ne man la xarit sëriñ saaliw du am la neex wala nga ne man la daamu sëriñ saaliw du am neex maanaam lu sëriñ saaliw moo ko liggéey waaw ba mu ba mu wàññi ko léegi nag yàgg na yàggut waaye li sosu ci ay taalibé Serigne Saliou kawe na lool waaye Serigne Saliou rek moo nu ko jaral kon ñu ngi sant waa fondation yëpp nag rawatina waa fondation Son Touba di sant suñu jëwriñ di nga xam ne si moo nekk ci bopp bopp liggéey bi Serigne Saliou ñu ngi koy sant bu baax dem ba Touba di ci siyaar Serigne Saliou nga xam ne fépp liggéey bi àgg tamit di ñu may fit di ñu yokk courage di ci siyaar suñu mbokki taalib bi nga xam ne si ña nga ca son dagar Serigne Saliou Ndiaye ñoom Serigne Fa Rasoul soxna Fa Rasoul ñoom soxna Fatou Salihat ñu ngi leen di wat waat bu baax ñoom ñëpp ndax wax deug yalla ñi ngi encourager chaque jour wax deug yalla ñi ngi sante bu baaxa baaxa baax rawati nak Serigne basirou fay Badjie Lo soxna Serigne Elas Dieng ñom wax deug yalla ku ñu sonno ci liggéey bi lañ ndax dañ ñoo jité dafa ñu kon ñi ngi leen di siyaara baax di def ak cant bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne Salihou. voilà mbokki internet yi li lañ leen ci rencontre fondation sop Serigne son lambay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax.